toujours dañoo gëm ne. est na que dina yomb ci président Macky Sall mu fal fi kenn bu ñu xamee ne jubóo gi des na quand même woo woote nga unité ba tey kenn wuy suu la kenn ku nekk daanaka sa yoonu bopp nga aw am na nit ñoo xam ne aussi ñu ngi ci dëkk bi mais population bi ñoo leen bëggul am na ñoo xam ne dañ doon bàkku ne ñoom mën nañu changer dëkk bi ba ba ba ba ñu bëri jàpp dañuy yàqal président dañ koy gañal mujjuñ ko gañal donc yooyu yëpp est-ce que du ay conséquences yoo xam ne aussi euh, moom moo andi li tey. non xoolal côté bépp nee naa la bari na ay conséquences yu am am na parce que nit ci àdduna ñaari façon day am ci nit nit dana jëkk jàpp na lii day defar ci fekk nag yàq la nit nit laa la wax nit day jëkk parce que danoo wax ne sax ki la gën a sopp ba mu ëpp sax. bu moytu lépp lu mu la defar mën na laa loolu am na ci am na ci yoo xam ne def na ay démonstration yoo xam ne lañ ci jublu woon mooy ak defar waaye ak yàq la ak yàq jur loolu day am ci politique parce que politique dafa dafa dafa yéeme dafa laaj xam dafa laaj jàng dafa laaj toujours action foo ko war a defee foo ko war a defee loolu am na ci nee naa la conséquences yi bari na mais nag changé wut ne man damaa am sin fierté que ne benn mbir daal laa doon wut muy ndamul président Macky Sall am na ko mais euh, mais nag damaa amaat ne point yi it yokk na. ndax doublé nañ fan tolloon. point yi yokk na mais ku mel ni ministère de lu interrogé nañ ko fii fan yi mu wax ne dañu war a renouveler changer personnel politique gu Touba ndax ànd nga ci loolu. waaw xam nga loolu ñun ñi dëkk Touba ñi fi ñëw di joox dëgg la moom jooxu fi la bopp sama mbokk la man mii di wax yow waaye dama bëgg kenn ku ne ci interview boobu ngeen def it bu rafet la bu seetaan naa ko mhm. moom wax na ko am na kum tudd nga ko muy Fada wala keneen. kenn ku ci ne fa nga féete am nga fa lu la doy sax ab log bu nekk ci sa lex nga loqar ji ko nag moo gën ngay dem ci logi jàmbur du ci am ay loo looy indee loo loo yóbbu kooku moom dama koy wax sama xarit sama mbokk na loo hmm. bu dee Daaru Musi la am na lu log parce que mooy cinq sax yaakaar naa commune bu Daaru ñu bett ah kon jàpp naa ni tamati ñoom ci seen gémmi bopp yi ña ngay def ay discours yu kon am na leen lu mu war a log lu dul loolu ñun ñi fi ne xam ne ni liggéey dëgg la am nay changement yu war a am mais nag am na ñoo xam ne nii tey reyante nañ fii loo xam ne nii moom moom wala keneen ku bokk ci département liñ fi campagne ñoom ci seen jëmmi boppam mën naa waat ne bu tegoon film yi teg mbir yi euh, fa nekk ñoom defuñu genn wàll. Hmm. kon kooku moom jàpp naa ne ca ñoom ay parti leen yor président jox na leen des moyens man mii di wax yow sëñ Modou Bara président joxuma benn moyen benn moyen joxuma ko. Ah waaw oui joxuñu ma benn moyen. sa moyen bopp nga demee sa moyen bopp laa demee beneen ba ci tege mooy. Euh, liñ fi joxe woon ay comité lañ ko joxe man ak Abdoulaye Ka ak euh, Maam Khary ak Abdoulaye Sadaga ak Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma mooy saas yooyu ñuy bañ ñu tudd ko ñun saas yooyu ñoo def signature yi pour xaalis bi ñëw ci dëkk bi ah, dëkk bi ñu fi ñëwee ne si se nee na yéen non xaaral kooku amut fi kàddu bay wax mhm. parce que benn ku ay mbir daan ñëw di jaar ci yow mhm. euh, léegi bu mbir yi duggee ci dëkk bi doo yëg fu di jaar fu mu jaar tey nga bëgg ay imposer ay nit ne faaw ci jaar ci ñu doon ay magi jim yor ay béjaaw est-ce que yaakaaroon ah, may ma foofu ma wax la Modou lu am importance laay wax hmm. kon tey ñun dëkk bii buñ ko defaraatee ba egg ci soixante neuf mille defaraatee laa wax ba ñu defar ko suñu bopp ak gàllankoor ak yàqoon non mais ba ba tey nee naa la ci élection yi dugal na ci ay yàq ndax pale élection la ma saaga saaga Cheikh du Bali saaga Mame Khary mais loolu kuy defar dana ko def kuy defar yi dana dem fekk say say sa ay opposant nga leen di jox ay essence ak i deux cent mille xaalis ak ak i ay bon ci foo ko jëlee xaalis boobu di ko def ah da fekk ki nga xam ne tamit sa doom mag la def ànd ak ñoom lan moo nekk ci seen gannaaw xam nga dafa am loo xam ne nii bari na ci dëkk bi nañ ko joxoñ ci wax ko ci ree ca gis nga fi mu doon nii maanaam li ma la wax ne la mbir mii leeral na lu baree bari bari président Macky Sall fii mu toll dara jëngatu ko dum siise du keneen du naan ay dekkal ngor ak yooyu c'est faux léegi ci guddi yi ñu toll on est deuxième mandat la majorité bu bees la am wa authentique ak yooyu yëpp c'est suñu gannaaw président fii mu toog daal mooy jël décision ci ngi jëm élection euh, mairie euh, xam naa foofu xëccoo yi dina tar ak conseil départemental yow sa sa sa rakk di sëñ euh, Cheikh Abdou Bara Dolly def na interview ci populaire wax na ci wàllu amnistie mais wax na aussi ne dañu bëgg benn personnalité bu neutre personnalité bu neutre boo xam ne liste benn list bi nga xam ne moom la xalif bi daan def dootul nekkati listu benn bokk yaakaar liste pouvoir daal comme ni mu fi daan amee nga xam ni ku fi mës a jaar nekk pouvoir yaa yore sa liste moom mooy pare ne listu xalif ñu listu xalif boppam bu neutre lañ bëgg kooku bëgg nañ d'abord nga joxe ci sa xalaat mais aussi wax na ne bëggatuñu ñoom biir na leen ni kii fi nekk dootul nekk maire yéen ban profilu maire ngeen yaakaar ne moom moo fi war a mën a am pour Touba mën a jàppale sëriñ bi pour développer. foofu daal li ma ciy tontu. Hmm. di ko leeral mooy. Touba c' est spécial mm-hmm. Touba c' est spécial xalifa di Mouride mm-hmm. mooy décédé ci dëkk bi kenn du ko wax lu muy def kenn du ko wax lu muy def man sëñ Modou Bara Dolly du ma ko wax mukk lu muy def ba ilaa bi xanaa moo may wax man lu ma def mm-hmm. kon damay wax ne foofu nan bàyyi xel ne lu fi nit man di politique ak politique ak koo man a doon ba ci man mi toog na nga bàyyi xel ne Touba c'est spécial segam Touba nag ci spécial sëriñ bi duñ ko wax li muy def moo ñuy wax ñun li ñuy def man kooku moom dama koy bàyyi ak sëñ bi man Modou Bara Dolly moom en tant que politicien wala bokk ci sëriñ bi ndax politique bii may def man sëñ Tuubaa ma ko ëppal solo lu man di doon sama taalibe sama li ma doon ci sëñ Tuubaa moo ma ëppal lu man di doon kon lépp lu jëm ci kàddu sëriñ Tuubaa foofu moom man Modou Bara Dolly amuma ci lu may def lu dul bu ma waxee ma jëf loolu laa ci am voilà keneen ku ci am leneen nag yaa ci am leneen waaye nag maa ngi leen di fàttali dëkk bi c'est spécial. Hmm. nañ ko bàyyi xel nag. Hmm. ndax yow candidat nga ci dara ci ci élection yi di ñëw. conseil départemental wala yu demee noonu. loolu moom mënuguma ci wax dara. Hmm. ndax comme lu ne ci kanam la ci dafa laaj liggéey. wax a waxagul dara ci loolu. waaye daal dëkk bi moom lépp lu fi jëm ci parti bi wala ñu koy yëngal ah, faaw sama loxo dana nekk ci biir. te loxo dana nekk voilà bu ma yënewul ci gis nañ ne euh, élection locale yi ku mel ni Cissé déclaré na candidature am Dakar waaye booy xool aussi diggante communes yi wër Touba yu ci ëpp moo ci teg loxo ndax ay nitam ñoo fa est-ce que jàpp leen ne Cissé même bu demaloon boppam tey bu ñëwee Touba dina fi gañ ay communes yu bëri. Euh, foofu moom jàpp naa ne lu bari mi ngi dañ. Hmm. ndax man mii di wax yow ba ma fa njëkkee woote fii yaa ma ko wax ñaata maire ñëw 14. te ñëpp xam na ne bu jaaree wet gi ma jaar wet nit ñi nekkutuñu foofu de nit ñi hmm. ngay wër di dem ci ñoom rek ci guddi yi ñu toll ba muy gàññi commune yooyu wala mooy wër ci dëkk yooyu dafa fekkoon na booba muy seere dëkk bi hmm. seeretu dëkk bi seeretu dëkk bi dëkk fi mu doon nii commune yi wër dëkk yi ay maire fa nekk ay borom bopp lan ay borom xel lan xam nañ fa fi mbir mi toll Mhm. xam na fii situation mais dëkk bi léegi kan nga yaakaar ne moo ko war a mën gérer parce que aussi xam nga ba kenn jiitewu ko bu ëllëgee kenn xamul kan mooy defar liste et cetera maanaam daal loolu est-ce que liste yi naruñ bëri ba tey loolu fii ñu toll hmm. président daal lu ci bari mi ngi ci loxo hmm. bu nu woon tey Modou Bara Dolly la est-ce que boobaa ñëpp ñëpp dañ ci ànd ma ne déedéet ñëpp duñ ci ànd lu ñëpp ànd amul ci àdduna wax ma ko yàlla mi ñu bind xool Modou yàlla mi ñu bind sax ñëpp gëm a ñëw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp gëmuñu ko sëñ Tuubaa mii ñu toog ci dëkk bi ñëpp gëmuñu ko am na ñu ne ci dëkk bi sax ci gëmuñu ko kon bu ne Modou Bara Dolly kenn du am na ñu bañ a euh, euh, euh, ànd ak moom gëm gëm ko mais nag la ëpp solo nan bàyyi ne kàddu président moom képp kum dugg ci biiram mën naa def lu bari de képp kum génn ci bitimit bi ci ci bi biiram bu ci président loxo am génnee war na ah lu bari dana ci génn mm-hmm. tey jii bu ne woon sëñ Modou Bara Dolly teg ci loxo ñëpp xam ne sëñ Modou teg na ci loxo bu soobee yàlla bala ñoo egg ci élection yi euh, euh, bu euh, quatre-vingt-dix yi daan ci ànd hmm. waaw waaye bu ne woon diw la mais ndax ah, dëkk bi bi mu nekkee ci loxo diw Cissé Lo moom mu koy wax mu ne ci di buur di bu mi ah ba mu ci dindee fi mu doon nii kat fi mu doon nii ñu bari xam na ne dëkk bi mu dutu fee def mu du di voilà kon nag loolu baatu président la ci loxo président la nekk hmm. ca moom moom mutul sax moom président dindi loo loxoom ci loolu moom moo bàyyi woon moo bàyyi dëkk bi ah démissionné kon foofu it dama fiy leeral dara hmm. président moom li feeg mi ngi diglu ñu naan diw ñu naan diw nangam wala ñu naan diw ñu naan diw nangam du fi teg kenn moom mooy jël décision am teg ko fi ni mu defee woon si ko defee woon mooy jël ku ko remplacer mu wut ku ko remplacer mu jël décision def ko te su dama ne képp ku président joxoñ ne diw la yow di ci ànd yow mais lu tax bu dama ci ànd hmm. parce que moo ko tànn moo ko tànn loolu leer loolu loolu loolu na leer parce que bi ñu defee Cheikh Abdou Bali euh, nu ñu ko tuddee tête de liste tête de liste dañ cee ànd pourtant gënuñoo valable pour ñu doon ko ah mais teewu dañ cee ànd loolu kon ki loxo président la nekk loxo président moom fii mu toll tey xam gi ma xam dëkk su ma doon wax naa dama daan ko seetal ku la neex nga gëm na moom la parce que moom lay doon yi ndax faaw nit ñi ànd ak moom pour liggéey ah pour liggéey cayit nag doole président comme na moom la faaw mu doon moom faaw mu doon moom ah. léegi sëñ Modou peut ñu jeexale ci wàllu amnistie loolu aussi nit ñi ñu ngi ciy wax amnistie ku ci mel ni Karim Wade ak Khalifa Sall wala grâce pour Khalifa Sall amnistie pour Karim Wade pour ñu mën a dellusi ci réew mi bokk ci langue politique bi mu mel ni langue politique bi nar naa jaxasoo waat ñu bëri ñu ngi yaakaaroon ne Idrissa li mu am fii xëj na moo ko moom waaye bu bu Karim Wade ñëwee mën na jëlaat li moom wala am na ñuy wax lu demee léegi naka nga gisee eh, d'abord amnistie yooyu ndax jàpp nga ne du war Sénégal ndax ñooñu dañoo amoon ay mbir ak yoon wala bu dul war Sénégal naka nga ko jàngatee exactement. xam nga côté boobu euh, El Modou hmm. du ci sori ndax comme man di doon bu dee Karim la wala Khalifa kenn ku ci nekk man sëñ Modou Bara Dolly sowetu ma la nga nekk mu doon luy continuer wala loolu nga nekk hmm. sowetu mu ko parce que nit moom euh, bu xamee yoon. du souhaité kenn muy nekk ci loxo yoon ca yoon nag lépp lu muy doxal ah man sëñ Modou Bër dama ciy bëgg a nëtër dama ciy bëgg toog bàyyi ko ak yoon beneen ba ca des it muy wàllu loolu nga wax muy kii bi nu ko tuddee amnistie bi loolu moom ci loxo yoon la mu jaar ci kilifa réew mi mu sañ koo def davaaram la moo koy sañ a def def ko ah waaw wala magoo kon côté bu mel bëgguma ci di ci sori mais daal li ëpp solo mooy wax nga ko Idriss Seck daal jàppal ne lii mu fi am man li ma gëm ci xam ko mooy ah, ñi ki dekkoon patron dëkk bi àndutoon na kenn dafa nëtëroon kon loolu war na fee des na moo fi sësoon moo fi sësoon yaa fi sësay taxaw falu nan xam ne moo fi sësoon moo fi moo fi patron dëkk bi moom PDS la woon hmm. ah déeru sama waajur yor ko ba léegi sama rakk yor ko hmm. ah, mais Idriss Seck tey bu demee ba lu mel ni amit dañ damay xam ne moo fi sës mooy taxawal kon jàpp naa ni tamit euh, suba man la ma gëm ba gëm ko bu Idrissa jëlee wàllam PDS ñëwoon jël wàllam tey tey élection yi yii ñu jëm bu PDS demee posi candidat Idrissa dem def ko ñun waa APR ñu def ko ñun waa APR ñooy gagné dañ koy gagné départemental loolu lu ma leer ni sama nit hmm. baaram man sëñ Modou Bara ah, loolu ngeen di wax dama lee dama laa wax dara hmm. président Wade hmm. bu amee candidat Idriss Seck am candidat ndax yaa fi sa sa taxafal tey bu fekkee ne lu mel noonu am na tey ñu xaajaloo tóoba ñun bu ñëwee dañuy jàll bu yomb yomb sax. jàpp ngeen loolu daal lii ma lay wax fii ci kanam rawati bët ban egg ci. voilà ñu jeexal ak euh, tàll bi président tàllal loxoom. Mhm. opposition bi pour ñu waxtaan. ñu bëri dàq waxtaan googu jamono ji euh, sax Idrissa Seck mi ngi mi ngi yooyu yëpp mi ngi ci wax euh, ak yeneen parti politique yi nga xam ne jàpp nañ ne dialogue boobu lu am njariñ yow noo ko gisee. waaw xam nga dialogue moom. nan jàpp na président Macky Sall njëkk ko woote ci tey woote na ko ci référendum woote na ko ci législatif yi woote na ko avant présidentiel yi yow après présidentiel yi mu woote ko kon président c'est un homme de dialogue wax wu nekk dialogue lay woote dialogue bi mu woote nag du noppee di ko woote parce que jàmm la bëgg ci réew mi ñu bokk liggéey Sénégal bàyyi coow yi ak wax bi parce que bu dee élection présidentielle jàll na kon lu fi des mooy liggéey ma rafetlu lool en tant que moom dialogue boobu mu continuer di ko woote parce que nag damay bañ wax tey rek naan tey pourquoi muy woote dialogue parce que njëkkul ci tey nee naa la amadou sulatif yi woote na ko référendum ba ba mu jàllee woote na ko ca téewut mi ngi continuer di ko woote parce que c'est un homme de dialogue waxtu wu nekk day continuer di ko woote kon loolu man lu ma rafetlu la ma koy wax moom ak leen nit la ñu ci moom mooy nit ku am fula la ku amul yar bu ko wootee buñ ko wuysee def na la ko waroon buñ ko wuy wut def na la ko waroon de toutes les façons du censé absolument rek parce que moom lañ indi rien di ko moo waral seen liggéey toogaat cinq ans yi jaaru na nag en tant que président de la république mu xam ne ñoom ni mu jàkkaarloon ay doomi sénégalais lan moom mu bëgg a tabax sénégal wóoleen ca loolu c'est normal acte bu rafet la acte noble waaye nag ñu ñëw ca wuy si ko ngir wane ne ñoom bu fekkee Sénégal leen ñor ñu wuy si ko loolu mooy seen ndam bu fekkee ñoom seen i intérêt personnel xooluñu ko intérêt Sénégal yi leen xool xalaat na ne cinq ans cinq ans yi dafay toog ñu ñëw wuy ko jàppale ko ci liggéey Sénégal bu fekkee ne Sénégal leen bu gëmul Sénégal gëm seeni i bopp nag euh, seen intérêt bopp mën nañ ko bañ a wuy si mm. waaye du tee du sensé absolument euh, rien sëñ Modou ñaari baat ci ñetteelu mandat bi nga xam ne tamit daanaka ay rumeur la yoo xam ne donte président bi wax na ci sax yow noo ko gisee est-ce que jàpp nga ne président mën na dem ba ca biir yëf yi neexaat mu mu laaj troisième mandat. loolu moom mënu guma cee waxagul lu bari ba tey. ah bon waaw ndax man euh, paaka du ma ko jiitu nu mu ko waxati. saatu du ma da koy bàyyi mu waxal ci boppam. dama koy bàyyi ba ndox ba ca kanam. Hmm. man daal la may sowete moom du ko sowete. mooy mu bañaam man déet déet damay may sowete du ko sowete. Hmm. cinq ans yii mu liggéeyal fii loo xam ne nii bu demee ba egg ca la ñuy wax troisième mandat moom mooy bañ nit ñi naan ko def fii toogaat. Ah, ah bon loolu laa koy sowétal man loolu laay sowétal kon yow troisième man nga déggoo li ma wax de nee naa la hmm. Hmm. man li ma koy sowétal du moom mu laaj ko waaw mais mën na bàyyi dama la parce que deux mandats successifs la ñu wax ma amee deux mandats successifs ñëpp mën naa dellu ma ne bàyyi kenn am mandat bu dellu si waat waaw déet ñëpp xam nañ ne hmm. euh, bi bi cour de bi bi conseil constitutionnel di def euh, mbir mi pour benn mandat cinq ans ci yoonu loi yee jàll bokku ci ci loi. yaa ngi théoriser sëñ Modou ba da ngaa bëgg a andi li fi Abdoulaye Wade defoon dama ne la ci loi. Hmm. bokku ci. Hmm. waaye président mac Sall mi ma xam. Hmm. gëm ko ne ñu ngi ci moment boo xam ne ñu ngi wax pétrole. ñi ngi wax gaz ñu ngi wax leneen ci suñ borom dimbale ko ba mu amee ci ak nekkee mu war fee ànd liggéey bala ñoo eggaat ci élection cinq ans yi pétrole boobee gaz boobee war nañ koo mën a jëriñoo. man gëm naa ne su cinq ans yi jàlle lay ñëw yi man dama gëm ne bu boobaa Sénégal yi ñoo naan ko doo dem ñoom ñoo koy posé. ñoo koy téye ñoo koy téye ci man loolu bu ma sowete xalaat ko gëm naa ne mooy am. <laughs> gëm naa ne sëñ Modou gëm naa ne mooy am. <laughs> sëñ Modou Bara Dolly waaw ah. loolu moom def naa yow rek yaa ko waxagum. ci ah, Sénégal maa ko wax de gëm naa ne def naa euh, xam naa dañ lay bàyyi nga tàggu euh, ak euh, internet yi. El Modou maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di gërëm. Euh, ji ma waxit lépp loo xam ne nii moom laa ci wax lu tënkoog ñoomte maa ngi koy jéggulu ñëpp xam ne rek nan bàyyi xel ni politique moom ay principe la nan bàyyi ñi fiy def nag ku wax sa principe ñu saagal wala ñu wax lu lu bon ah loolu dafa dëppoot ak démocrate ca man Modou Bara Dolly moom samay principe ak samay gëm-gëm waxtu wu ne danaa ko wax mu ànd ak ki teggin ak sutura ak sama gëm-gëm kon nag nag Sénégalais yi nan bàyyi xel ne réew mi ñu yor réewu démocrate kenn ku ne am na droit di wax ay principe gëm-gëmam samay principe ak samay gëm-gëm de bis bu ma nekkee ci parti dem ba mënutuma ko wax damay génn parti bi man sëñ Modou Bara Dolly kenn mënuma koo tee ma koy wax kon nag loolu dama leen koy dénk euh, ñi nga xam ne ñu ñuy déglu beneen bi ci dese di wax ne ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm El parce que ñëpp gis nañ liggéey bu rafet bi nga xam ne ah ban la xamee ay at la ci département bi nga di ko def ñu ngi ñaan yàlla it nga dem ba yor sa télé département wala sa télé national loolu ñu ngi leen ko souhaiteel euh, nga ak sa cameraman bi nga xam ne sama xarit la moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf kon mbokku internet yi mu nekkoon euh, invité parlons politique ak Serigne Modou Bara Dolly nekk vraiment koo xam ne aussi ñu koy sant bu baax parce que suñu xarit bu yàgg la loolu moom ñëpp xam nañ ko Euh, ëpp na léegi mu mot ñaar fukki at donc euh, mu nekk moom également nit ku baax koo xam ne ku yàlla baaxal la mu nekk fii di fi yëngu te ñu xam ko rek ci liggéey ak euh, jaamu yàlla ak yëngu ci wàllu politique te am ci fulla nag donc ñu koy souhaité yow aussi comme ni ñu ko ñaanale ñu lay ñaanal yàlla defal la ay ndomb tànk politique ñu am solo yoo xam ne dina tax liggéey bi nga xam ne bëgg nga ko liggéeyal Touba ak yéen bi nga am ci Touba nga mën ko àggale ñu sant bu kon bokk internet di leen jox daje incha allah beneen semaine ci beneen invité parlons politique asalaamaaleykum wa rahmatullah